tey ñi ngi war a tàmbale fi borom aqrabul masaalik di wax ni ka tibnin aw waraqi shajarin wala in xafa taxayuru bi aalati saqiin ñi ngi doon wax ci ndox xeeti ndox yi yoo xamante ni bu ko soppee da koy yàq ak yoo xamante ni bu ko soppee du ko yàq ak yoo xamante ni tamit maye nañ ko te bokk na ci maye li ñu waxoon ni loo xamante ni moytandiku moytandiku ko day jafe mooy bi ñuy wax naan aw bi ma in yasurul ixtiraazu minhu bokk na ci yi nga xamante ni moytandiku ko day jafe koo xamante ni dafa amoon ab bërigoom xam nga bërigo yi mag ñi dañ daan def ci bërigo weñ yi ndox bërigo yooyu bu mësaa bënn dañ ko daan raax ak ciment raax boobu ñu koy raax ak ciment nag def ci ndox man ngay naan sax mu mel ni day xaw a saf ciment wala mu koy xeeñ ak yooyu comme bañ ko cay def dañ ko dañ ko caa def ngir fàttee ko ko rek bu booba dañuy wax ni soppiku googee mu koy soppi du ko yàq wala leneen loo ko mën a fàttee rek fatt ndab la nga ci jublu waaye loolee dem na ba soppi ko yooyu dañ koy baal dañ koy jéggale bu dee lu mel ni godron tamit dañoo wax ne arab yi dañ ko daan bu dee lu mel ni godron arab yi dañ ko daan faral di jëfandikoo lu baree bari moo tax ñu jéggal leen ci ñu jéggal leen ci loo xamante nii tamit jéggaluñu ko ñeneen ñu dul ñoom kon dafa mel ni réew mu nekk lii seen aada ci ñi koy defaree seeni ndab rek buñ demee ba daanaka amuñu yenn ndab ndab yooyu doo nga fa sës moom bu fekkee defar ndab la moo tax moo moo moom lañ ca jublu waaye jubluwuñ ko ca xëpp ko ca def ko ca noona rek di ko neexal ak yu mel noonu bu boobaa bu ko soppee dañ koy jéggale looloo tax mu daal di wax ni katib nin lu mel ni xetax xetax boo xamante nii ku mel ni ibnu rushdin sax wax na ko rawatina ci dëkki àll yi ñooñu tamit dinañ leen jéggal loo xamante ni duñ ko jéggal ci bu dee ci dëkki eh, taax yi ndax bu dee dëkki àll yi teen yi bu njëkk sax xëy na léegi tane na waaye teen yi niñ leen daan tabaxee daawul niñ daan tabaxee teen yi bu njëkk daawul am pind wala ñu ci bari bokk niñ ko daan tabaxee nga xam ni ngelaw li mën nay toxal xob yi di ko dugal ci biir muy soppi ca cafka ga ak yooya cafka gi ci soppi ko xet gaak yooyu bu boobaa dañuy wax ni bu dee teene àll yi la te mënee su koo ub dañ koy jéggale ndax moom am ñoom amuñu leneen lu dul loola bu dee ci taax yi nag wute nañ bu fekkee tamit teen bu am kubéer la tamit wute na wala lu mel ni ab baaj yooyu bu amee ubbukaay te boroom ubbu ko bu soppi ci xob yooyee wala lu mel ni xet ak xetax da koy yàq mu daal di wax ni wala in xafa déet bu woyofee ak taxayuru soppiku ga bi alati saqiin ci jumtukaayu aji wëgg bu ci jumtukaayu aji wëgg waaye soppiku ga woyof na dinañ ko baale min xablin moo xam ca buum ga la soppikoo aw wi a in wala ndab la ndab la mën naa doon baag ba wala siwo bañ koy roote eh, xablu bi mën naa doon goj bi goj biñ koy rootee waaye ci kaw nag day fekk matière boobe bukkul ak matière yi suuf yi bu fekkee matière bañ koy rootee ci matière yi doomu aadama di liggéey la lu mel ni këwsu bu fekkee bu fekkee lu mel ni e, cëgg gu ñu raw la nag boroom xam-xam yi wuute nañ ci ci bu soppikoo ba ëpp ak bu soppiku ndax dina ko yàq walla déet waaye bu fekkee lu mel ni ay weñ lañ koy rootee nag maanaam ay feer ak yooya lum ko soppi soppi bu yàggee tamit lum ko soppi soppi du ko yàq ndax feer weñ dafa bokk ci matière yi nga xamante ni dafa ànd ak suuf bu fekkee fekkee matière yi nga xamante ni àndul ak suuf nag bu booba bu ko bu soppikoo ba ëpp rek da koy yàq waaye bu woyofee du ko yàq mu ngi mel ni tamit jumtukaay liñ ci jublu mooy tiwo yi nga xamante ni ña ngi ko jëlee ca machine ba di ko dugal ca ca ca kër ya wala ca dëkk ya tiwo yooyee di andi ndox bu dee tiwoy kawsu la dañuy wax ni bu ko soppee ba mu ëpp da koy yàq waaye bu fekkee nag da ko soppi soppi bu yem rek maanaam soppi bi soppi gi notu ko ca caf ka ga couleur ga ak ak euh, melo wa wala ak caf ga ak xet ga ak couleur ga bu ko soppeewul noonee rek du ko yàq waaye bu fekkee nag tiwo yooyee weñ la tiwoy weñ lu mu ko soppi nag lu mu ëpp ëpp tamit du ko yàq mën naa ndox mi mën naa ñëw xonq xonq curru sax tiwoy weñ mooy faral di def noonu bu boobaa xongaay ba du ko yàq ci wàllu jaamu yàlla mos nañ koo laaj tamit kilifa gu cay liggéey ndax dina ko ndax dina dagan dina baax ñu naan ci ci wàllu wér-gu-yaram mu ne ma ndox moomu sax sanru feer la ni mu xonge noonu la baaxe ci ci naan ko te sax lislaam moom nee na dagan na ndax li tax mu dagan mooy la tax mu xong jumtukaay googe weñ la loolu moo tax mu daal di wax ni jumtukaay gii nga xamante ni doomu aadama moo ko liggéey bu fekkee da koo soppi soppi gu woyof du ko yàq ndax lu tax mooy dañ koy rootee ndox ma wala tamit aw taxa yara wala ndox mi soppiku bi asari baxoorin ci jeexantalu cuuraay ci jeexantalu cuuraay mooy ndab loo xamante ni dañ cee def cuuraay léegi saxaar sa nekk ca ñu gaaw sotti ci am ndox mu soppi ndox ma wala ñu taal cuuraay li saxaar sa jëmal jëm ca ndox ma ba soppi ko bu boobaa na ko yàq waaye bu fekkee nag dañ koo def ci ndab li sotti ko ba mu yàgg ba yàgg ñu ñu sotti ca ndox ma jeexintal googee du ko yàq ndax li tax du ko yàq mooy bu ko ngelaw li uppee ba mu yàgg rek xet ga day dem mu daa di wax ni kaqatiraanin wala lu mel ni godron comme ni ñu waxee woon godron liñ ci may arab yi dañ ko daan faral di dugal ci ndab ndab luy senn ak yooyu di ko jëfandikoo lu baree bare ka jirmihi lu mel ni jëmmi godron ba in rasa ba bu fekkee dafa digg bu boobaa tamit bu fekkee soppiwu ko ba mu ëpp du ko yàq bu ca bu ca safee rek ndax mën na caa mën na caa saf bu ca safee couleur ba soppi ko dañoo wax ne da koy yàq waaye bu fekkee xeeñ na ca rek ndax dañuy jéggale ci xet loo xamante ni bu soppee ndox dina ko yàq ci misaal lu mel ni kotol ak yooyu ndab yooyee ñu koy def mën nga koo raxas ba mu set wicci ba mu set teewul bu ci fanaanee ba bët set lu mel ni omo kotol ndox mi moom dina ko xeeñ waaye du ko saf xeeñ googee mu koy xeeñ dañuy wax ni dinañ ko jéggale dañuy jéggale ci xet loo xamante ni duñ ko jéggale ci cafka ak couleur kon bu boobaa dinañ ko jéggale aw shakka wala ñu sikki sàkka ndox moo xamante ni dañoo sikki sàkka fi mu xayire yi ci aji soppeem ca la ko soppi xale ya duru ndax dana lor boo ñëwee fekk am ndox nga gis ni am na lu ko soppi waaye la ko soppi xamoo ba xam dina lor wala du lor mën ngaa ñam ndox mi am lum la saf waaye li mu la saf nag xamoo ba xam ca dëgg-dëgg dina yàq am ndox walla du yàq am ndox bu boobaa dañuy wax ni jàppal rek ni ndox ma baax na ci sikki sàkk kon donte bu doon njortu tamit ci lay gën baax ndax njortu moo gën a dëgër sikki sàkk njortu moo gën a dëgër sikki sàkk kon ndox mi fii bu ko dee sikki sàkk sax bu ca amee dan naan ko kon jàppal ni ndox mi baax na aw walla fii ma ci ndox moo xamante ni joxe la defees na ko fil fàmmi ci gémmiñ ndox moomee tamit ñaari wax am na ci ci diggante ibnu euh, ibnul qaasim ak ashab ibnul qaasim dafa wax ni du ko yàq ndox moo xamante ni dañ koo guux ci gémmiñ moo xam ka koy guux dafa war a dem ca wanag war a raxasu amul jumtukaay bu mu yóbbee ndox ma mu guux ko ci gémmiñam wala mu guux ko di ci raxas ay ay ay cëram ak yooya ibnu rusdin dani maanaam ibnul qasim dafa wax ni baax na du du ko yàq loolee mën nañ caa laab mën nañ caa laablu ashab ni déedéet ibnu rushdi nag daal di wax ni bu fekkee soppi wut bu fekkee ba mu ko góoxee gémmiñam amul xet wala mu yàgg ca mu jaxasoog lor ya ba soppiku ca lor ya bu lool bu ca loola amee rek ndox moomee dootul baax waaye bu ca amul nag dina baax bu fekkee tamit dañuy sikki sàkk ca ndox ma ndax lore ya soppi na ko wala déet bu boobaa tamit dañoo wax ne dina baax moo tax mu ne xal taxayara mu daal di wax ne aw fii maa xulita aw fii ndox moo xamante ni tamit dañ dañ koo jaxase dafa jaxasoog bi mu waafi waafiqin ci aji dëppoo xal yu xayiru xal yu xayiru ndax soppi na ko law fa donte wuute woon naag moom ka taxaquqihi niki ak wóorloom alal arjaxi ca ibnu yunus lim bëgg a wax fii almaaul muwaafiq liñ ci jublu mooy ndox moo xamante ni mook ndox ñoo bokk lépp ci misaal ndoxum parfon ku nekk xam na ni laab na waaye mënta laabal bu jaxasoog ndox ba soppi ko rek da koy yàq loolu moom ñëpp dëppoo nañ ci ndoxum parfon laab na waaye bu dëppook ndox bu bu jaxasoo ndox moo xamante ni moom lañuy jaamoo yàlla ba soppi ko da koy yàq waaye nag dafa jekki-jekki ba yàgg mu mu daa di eh, varier maanaam ngelaw li di ko upp ak yooyu ñu ubbi ko ba mu far doon am ndox walla moo xam bineegar tamit noona ngelaw li di ko upp ndax mën naa am couleur ngelaw la di ko upp ba couleur ba dem caf ka daal di sàlli boo ko xoolee mu doon ndox mu weex tàll bu dee parfum ba tamit mu doon ndox mu weex tàll ci couleur bi cafka gi nga ñam ko mu jox la ndox fóon euh, nga fóon ko xet gi jox la ndox mooy muwaafiq waaye dafa jaxasoog ndox mu laab foofu tamit dañoo wax ni bu fekkee jaxasoo ga ay ay ay wax da cee am ñu ni bu fekkee jaxasoo ga euh, ba fekk ndox ma ba mu variéegul bu jaxasoog moom soppiwu ko ndox moomee kon jaxasoogum jaxasoog moom ca loolee du ko yàq loolu ñëpp dëppoo nañ ci ñu daal di wax ni tamit bu fekkee dafa jaxasoog moom ñuy sikki sàkka naan ndox mi day ba muy doon parfum bu jaxasoo woon ak moom yaa ngi sikki sàkka ci ba xam dana ko soppi wala du ko soppi bu boobaa tamit baax na ñu daal di wuute ñii daal di wax ne waaye nag bu jaxasoog moom ba mu wóor ni la ba mu variyeegul bu jaxasoog moom ñii soppi na ko wuute da cee am ñii ni kon da koy yàq ndox ma du mbaax teg ko nële bu dee ci aada la mën nga koo jëfandikoo waaye bu dee ci jaamu yàlla doo ko doo ko jëfandikoo ibnu rushdi daal di wax ne déedéet loolu tamit du ko yàq moo tax mu ne walaw xaalafa donte wuute naag moom jaxasooga ka tax ka taxaquqi ak wóorloom maanaam ni mu leen wóoree ni bu jaxasoo woon ak moom ba muy ba mu dina ko yàq noonu tamit bu jaxasoog moom ba varié loole du ko yàq moo tax mu daal wax ni ñu moog wóorlu ga ñooyam rek mu ñàkk leen a wóor wala wóor na ni leen fële maanaam wóor na ni leen lii du ko soppi ba mu variégul ñu ni waaw kon baax na ñii ni ñu ngi ciy sikki sàkka ñu ni waaw kon baax na ñu daal di wax ni wóor na ni soppiku na ko bu wóor na ni bu ja bu ba mu variéegul bu ko soppee da koy yàq ibnu rusdi ñu daal ni ak ah, kon ñooyam rek ka taxaquqi yi moo wóor yële weesu ak mu wóor leen wóorlu gii tamit ñooyam rek alal arja ca wax ja gën lëng kon atte ndox moo xamante ni dafa dëppook ndox ci lépp no loolu mooy ab atteem waaye nag du tax ndox moomee bu beroo moom kese nag kenn du ko mën a jëfandikoo ndax moom ca cosaanam du ndox wa xukumuhu atteem ndox nag atteem ndox ma mooy ndox moomee moom bu beroo mooy li ñu wax léegi walla sax bu fekkee da ko soppi ba not ko moo xam ndox mi varié wut moo xam ndox ma varié gul muy parfum bu soppee ndox ba not ko wala soow soppi ndox ba not ko ndox ndox daal lépp lu ko soppi ba not ko ka mu xayiri yi day mel ni la ko soppi rek ak at ak day mel ni la ko soppi bu fekkee soow la dan naan kon ci aada rek lañ ko mën a jëfandikoo waaye mënuñu koo jëfandikoo ci ibaada bu fekkee sobe la dan naan mënuñu koo jëfandikoo ci aada bu fekkee la ko soppi sobe la mënuñu ko jëfandikoo ci aada mënuñu koo jëfandikoo ci ibaada kon nan lañuy def mooy tuur ko wala bu ko bàyyi ma soxlaa ñu jox ko ko mu naan ko wa kuriha sibees ne maa un ndox moo xamante ne yasiru ndox mu néew la ustamila jëf moo xam ne jëfandikoo nañ ko fii xadasin ci am toj kon fii waxul xabas xadas la wax ndox mu néew tamit la wax ndox mu néew liñ ci jublu mooy bu dee koy jàpp ndox mu toll ni ndoxum aji jàpp loolu lañuy wax ndox mu néew ndab la ndab lii bu ma ci jàppee ba pare ndox ma jeex walla kuy sangu farata ñu ni ndox mi bu ci sangoo ba pare ndox ma jeex waaye yaramam amul sobe mu jëfandikoo ndox moomee kon dan naan ko ndox ma bu fekkee ndox mu néew la dañ koo sib liñ koy sib sib nag bu fekkoon dañ koy jëfandikoo ci di ko raxasee xabas wala atteb xabas du àgg dootul àgg ca sib ga ndox moomu sib nañ ko mu bu tuutee aw walla sax te sib ga tamit day fekk ñu am meneen sib ga day fekk mu am ñu am meneen ndox waaye boo amul meneen dootul dootu dootuñu ko sibati ndox mu jëfandikoo ci ci xadas waaye liñ li tax ñu wax kanoog mooy dara soppikuwu ca ba tey lu luy sikk ba mooy jot nañ koo jëfandikoo ca xades ndax dañuy wax ni yére sax bu ko nit jëfandikoo yére boo xam ne dañ koo tàmma jaay mu bees ku ci sang ku ci sang ku ci sàng ab néew suuli ko ba ñëw donte ma ngay bees sax boo koy jaay xam nga dara sikku ca neel sàngee woon nañ ko ab néew boo ko waxul bu ko kookee yóbbee ba xam ne mos nañ cee sàngub néew moo xam dañ ko ko wax bu boobaa sikk la soo xamante ni sañ na koo delloo moom lañuy ñuy jox misaal ci ndox mi rek dara soppi kuwu ca waaye liy sikk si mooy maanaam li tax ñu sib ko mooy dañ koo def jëfandikoo ci xadas ñaareel ba mooy bariwut waaye bu woon dootul àgg ca sib ga bu ñu amoon meneen tamit moo tax ñu sib ko waaye bu fekkee moo fa sës dootuñu ko sibati aw wala xalaat wàcc na maanaam rot na bii ca ndox ma najaasatun sobe sobe soo xamante ni lam toxayiruhu soppiwu ko dañoo wax ne ndox bu fekkee sobe moo ko soppi te sobe sa su ndox sobe moo ca toq waaye toq gam ca toqi nag defu ci genn jeexantal yow gis nga rek ni sobe la kon bu boobaa dan naan sib nañ ndox moomee sib nañ ndox ma deesu ko jëfandikoo dañ koy sib lu tax ñu sib ko mooy sobe la waaye soppiwu ko kon bu boobaa comme sib la rek mën nga koo jëfandikoo waaye boo amee meneen nga bàyyi ko fa moo gën aw wala walaxa mu daal di xab fii ca ndox ma kalbon ab xaj ndox bu fekkee xab xaj da ca xab dañ koo sib ndax yonent bi sallallahu alayhi dafa wax ni xaj bu xabee ci ndox nañu raxas ndab la nga waxul sax ca ndox ma dara dañuy wax ni nañu raxas ndab la raxas ga nag dañuy wax ni ak jaamu yàlla la waaye du caage nag sobe moo tax mu koy wax bu rawatina bu dee ci yoonu Malik waaye atteb ndab la nag mooy nañ ko raxas juróom-ñaari yoon am nañu wax nañ ci boole suuf waaye bu dee ci yoonu Malik moom xaada ayaat bañ ko laajee dafa wax ni am na xaddis yu ci rot te waxut suuf waaye ci dëgg-dëgg tamit xaddis ya am suuf dafa am ibtiraab ndax ibtiraab mooy mënoo ndox mu njëkk ma nga def ci suuf ci xaddis bi beneen xadis nga ñëw ni ndox mu mujj ma te ka nettali xadis ba di kenn ñaari xadis di kenn nit benn ba nga ni ula na bi ci des nga ni na booba mënt maanaam ñaari xadis yooyu kenn mënu leen a boole kon bu boobaa ban nga ciy jël te ba pare tamit ki ko wax muy Abu Hurayra bañ ko laajee moom wax na leneen lu wuuteeg xadis ba moom dafa mel ni sax ñetti ndox la wax beneen bi tamit am na beneen xadis bu wax juróom-ñetti ndox juróom ndox wala nga juróom-ñetteel ba loolu moo tax itiraab boobu am ci xadis bi moo tax jëluñu ko wasuxtilaafi matnu wasuxtilaafi sanadin aw matni muqtaribun inda uhaylil fanni wasuxtilaafi sanadin aw matni muqtaribun inda uhaylil fanni dafa mel ni noonu la ko borom bay xuun yee waxee iqtirab day am ci matn day am ci sanat xadis boobu dañuy wax ni muqtarib la ndox moomu kon dañoo wax ni ndox mu xaj xab da ca ca sib rek waaye taxul ñu ni sobe la ndax bu doon sobe ca dëgg-dëgg kon dañ dañ koy tere comme niñ teree ay moroomam wa mu ak ndox mu ñu jantal ndox moo liñ ci jublu mooy ndox moo xam dañ koo tàngal ci jant bi bi xuturin ci ab xaarin buy aji tàng ndox moomu tamit dañoo wax ni dañ koo sib waaye dañoo wax ni ca dëgg-dëgg li liñ gën a sukkandikoo mooy sibuñu ko li tax ñu ni sibuñu ko mooy sibuñu ko ci jaamu yàlla fi ñu koy sibee rek mooy wa musammasun bi xuturin ndax bu dee fële eh, ibnu borom muxtasar xalil tamit andi na ko waaye fii dañoo wax ni ci charte bi xuturin mooy ñu ñu tàngalee ko ci lu mel ni péey maanaam ci misaal ndabul armiñoŋ ndabul armiñoŋ wala ndabul përëm nga tàngal ko ba pare tàngalee ko ci suuf su mel ni suuful xijaas ndax ndoxum jant maanaam jant bi nga koy tàngalee waaye ndab la nga koy tàngalee lu mel ni përëm la wala armiñoŋ ñi ko sib sax dañoo wax ni bu fekkee ci anam googee lañ koy sibee ndax bu tàngee rek xet ga day day soppiku bu ko defee ñu daal di wax ni ñi ko sib tamit dañoo wax ni dañ koo sib ci wàllu maanaam aada sangu ko sangoo ndox moo xam ne dañ koo tàngal ci jant bi day waral wére di yaram comme dañoo wax ne day waral wére di yaram nag ñu ne dañ koo sib ñu ne bu fekkee sib googu la nag kon ki ko bàyyi du ci am tuyaaba xam nga nangam dañ koo sib boo ko defee doo ci am bàkkaar waaye boo ko bàyyee ngir dañ koo sip bàyyi naa ko danga ciy am tuyaaba waaye ñu ni ndox mi ñu tàngal ci jant bi nag bu fekkee dañ ko sip dañ ne dañ koo sib waaye li tax ñu sib ko mooy eh, ki ko sangoo mën naa am wéradik yaram loolaa tax ñu sib ko kon bu boobaa nag ka ko bàyyi ngir loole du ca am ba ndax day sàmm wér-gi-yaramam mu daal di wax ca ndox ya ñu sib tamit kaxti saalin niki sangu bi ci ndox muy aji dal ndox moomu moom bu dee maalik dañuy wax ni amu ci ak jàppandal benn yoon benn mooy mu sib ko walla mu ni mu ni dafa xaraam mu dafa xaraam mooy mu wóor sobe sa so moo ko soppi sobe sa soppi na ci sobe ndax ndox moo xamante ni dañuy ñëw rek dugg di sangu te amul fenn fu muy yokkoo bu boobaa bu sangu ba baree rek mën naa am sobe moo tax maalig ni kon nga bàyyi ko moo gën ndax am na benn xadis bu ko doon bu koy tere waaye nag xadis bi tere ñu sangu ci ndox mu dal xadis boo beneen xadis mooy ñëw ni ndox moom bu soppikuwul ci ñetti melo yooye dina baax kon Malik ñëw ni kon tere googee tere sibeel lay doon ndax ab xadis ñëw na daganal ndox moo xamante ni soppikuwul ci ñett yooye mën nañ koo jëfandikoo Malik ni kon bàyyi ko moo gën waaye bu soppikuwul mën nañ koo baale ku mel ni Ibnul Xaasim nag ni moom Malik ni kon bu soppikuwul lañ koy sib bu ku mel ni Ibnul Xaasim nag moom dafa wax ni bu soppikuwul duñ ko sib bu soppikoo nag day xara day day xaram Malik dañuy sib wala xaram Ibnul Xaasim ni ñàkk ñàkk sib wala xaraam rek xaraam gi mooy bu demee bala dal ay moroomam dal ko ci soppiku goo xamante ni ñëpp xam nañ ni kat salte ba moo ko soppi mu daal wax ni waraakidun ak aji dal ndox moo xamante ni dafa dal benn palaas lu mel ni ab barigo wala ndox mu ñu wax léegi nii tamit maata deena fii ca ndox ma bariyun ko aji jéeri maanaam rabu aji jéeri rab woo xamante ni soo nafasin dafa am deret joo xamante ni saa ilatin ju yol la waaye tamit teewul ndox moomee walaw kaana donte nekk na lëxoo ñeel ndox mi maaddatun fu muy yokkoo lu mel ni siyaan lu mel ni siyaan fii loolu la ci jublu bu dee raakit rek amul fu muy muy yokkoo lu mel ni bërigo la waaye bu dee raakit moo xamante ni am na fu muy yokkoo lu mel ni siyaan xam naa man naa am teen dugg ci biir ndax moom dafa am fu muy yokkoo rek waaye du caagi nag ndox muy daw la di di kii di dem ci barab bu boobaa dañoo wax ni ndox moomee dañ koy dañ koo sib bu ca bàyyi ma deeyee nan lañ koy sibee bu ci bàyyi ma deeyee mooy bàyyi ma ba dafa daanu ci biir dee ca biir waaye bu fekkee dafa dee biti daanu ci biir bu boobaa duñ duñ ko sibati dañuy dindi bàyyi ma bi rekk sànni lu tax mooy dañoo wax ni bàyyi ma bi bu fekkee ci biir la deeyee dafa am sobe su nekk ci biir soo xamante ni ba muy noyee ko wéqu day génn ci ndox mi day génn ne ca kaw ndox ma bu fekkee ci biir ci biti la deeyee nag ba ba ba pare nga xam ni moom dootu ko mën a génneel boppam bu duggee ci biir du ko bu fekkee tamit dafa daanu ci biir ndox mi deewul ñu génne ko ci biti deewul kon bu boobaa deesu ko sibati fi ñu koy sib nag mooy bu fekkee wóor na ni moom daanu na ci biir waaye soppiwu ko kon bu boobaa tamit bu daanoon ca biir dee ca biir naka ngay def mooy da ngay as ndox ma ndox moomee da nga koy as ca kaw di tuur di as di tuur bu fekkee bàyyi ma bi dafa rëy nga as lu bari tuur ndax ndox yenn sobe yi bu ca nekkee ndox mu laab ca kaw lay faral di faam ca kaw lay taa rawatina bu dee ndox moo xam ne dafa am fu muy yokkoo ca kaw lay taa bu bàyyi ma ci baree nga as lu bari tuur mu baax bu fekkee bàyyi ma ji dafa tuuti nga as lu néew moo tax yenn téere dañuy wax ni niki niki meloo maanaam niki dayoo bàyyi ma ba nam tol rek bu doon ginaar la mën nga as lu néew bu doon xar la nga as lu xaw a bari ak bëy bu dee lu mel ni nag la nga as lu bari naka noonu bu dee rab yi yeneen rab yi ne ci àll bi rek comme kéwél ak yooyu bu ko defee mu daal di wax ne kon bu boobaa wa nu kon soppees na nas nasuxun ak ak ak as ca kaw ndox ma di tuur lu tax mooy li zanni zawalil fadalaat njortu ni fadalaat joojee jugee ca bàyyi ma ja ne ca kaw mu deñ boo asee ca kaw moom fadalaat ji ca kaw maanaam sobe yooye nga xamante ni dafa génnee ca bàyyi ma ja taa ca kaw ndox ma boo asee tuur rekk ndox sobe soosee day deñ loolu moo tax liñ doon leeral léegi ni laa in a laa in oxorija déet buñ ko génnee xayeen mooy aji dund bu boobaa du jar ñu koy asati aw waqa wala mu daanu ca biir maytan fekk dee na ba pare bu dee ba pare door daanu ci biir jaratul nga koy as jaratul ngay as ndox ma boo ko génnee muy dund tamit jaratul ngay as ndox ma loolu moo tax mu ne laa in uxrija xayyan deesul as buñ ko génnee fekk ma ngay dund aw wax am wala mu daanu ca biir fekk booba deena bu yàgg walaw zaala donte deñoon na nag taxa yuru muta najjisin soppikuk aji sobewu bi xayri ilqaa i taahirin ci ludul sotti ca lu laab fiihi ca ndox ma lam yatxur du laab boroom aqrabul masaalik ni walaw zaala doonte deñ na taxayuru mutanajisin soppiku aji sobewu bi xayri ilqaa'i taahirin ci ludul nga sànni ca laab aji laab fii ca ndox ma lam yatxur du laab lim bëgg wax fii nag mooy ñaari ndox a ngi nii mii dafa am sobe ñu teg ko ba yàgg ñu ñëw def ci lu mel ni donju ban wu mag walla nga def ci suuf moo xam danga génne suuf sa walla dafa dafa diig ak moom ci suuf nga gis ni sobe sa kat deñ na sobe sa danga koo ñamoon xay xam xam ni saf na ca mu yàqu wala danga koo fóonoon mu xeeñ ca mu ñu ni yàqu na wala nga xooloon ko gis ci couleur ba xam ni yàqu na nga ñëw def ci lu mel ni doon ju ban génne ko walla mu diig ca suuf nga gis ci xam ni ca dëgg-dëgg sa moom sobe sa deñ na bu boobaa laab na waaye moom safaan bi la wax fii nag bu fekkee ndox mi dafa dafa sobewu nga nga teg ko jékki-jékki ba yàgg nga gis ñëw ni sobe sa deñ na li tax sobe sa deñ mooy xëy na ngelaw lu koy upp ak yooya waaye yow defoo ci lenn loo xamante ni mooy mooy wane ni moom sobe sa deñ na ca dëgg-dëgg nee na bu booba lam yatuxur laabut ndox ma laabul mële moom baax na li tax mu baax mooy def nga ca ban walla suuf loo xam ne moom ndox a ànd mu dindi sobe sa kon ndox mooma baax na waaye mii tamit danga nga koo teg mu yàgg mu am sobe nga gis ni sobe sa deñ na waaye yow defoo ca loo xamante ni mooy dindi sobe sa kon bu boobaa nee na ndox ma laabut kon xam naa bunt bi foofu la yem buntu ndox yi eh, incha allah beneen dars ñu war a tàmbulee ci faslun attaahiru alxayu wa araquhu wa damuhu wa muxaatuhu wa luaabuhu wa bayduhu maanaam lépp luy dund rek laab na donte mbaam xuux la ci yoonu Malik ay eh, yuutam ak ba ci yuuti xajak ak yépp rek bu dee ci yoonu Malik dañoo wax ni dafa laab incha allah kon xam naa ñu taxaw fii ci ci buntu boobu incha allah bu beneen yoonee ñu tàmbalee foofu in uridu illa al islaha mastataatu wa ma illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibu asalaamu aleykum wa wa barakaatu